mbokkeek xarit yi yéen ñuy safoo di ñu topp fii ci dakaar net jàngeen jëf ci ànd bi di rafetlu bu baax seen i ab topp tey nag comme niñ ko daan defee tous les dikk ak yéen ci xibaar yi nga xamante ni nag moo gënoon a fës ci ay bés yu ñu génn ñu dooree ko ba tey ak mbiral Ousmane Sonko beeg Adji Sarr nga xamante ni ni ki ay bés ñu ngi ci wax bile yoon nag fële nga xamante ni nag mooy ca UCAD di université Cheikh ant Diop de Dakar foofu la ñu koy dooree ki nga xamante ne nag mooy njiital Pastef di usmaan Sonko amaloon na fa ab euh, doxub euh, nemmeeku moom nag li ko fa yóbbu woon mooy seet kenn ci ay ndawam nga xamante ni dafa jëlee woon ay gaañu gaañu nit ki manifestation yi nga xamante ni amoon na ci ay euh, bés yu ñu génn moom moomee nag di Ousmane Sonko ginnaaw bi mu fa demee di leen seet ndawal UCAD yi nag daal di nañuy génn ak doole daal di ko fay tertu ca loole nag ñi nga xamante ni ñoo fare ak Macky Sall daal di mer bay futtu ñoom it daal di génn jàkkaarloog ñi nga xamante ni nag mooy ay ndawal Ousmane Sonko ñoom nag ñu daal di jàmmaarloo foofee jàmmaarloo yu metti ba ñi nga xamante ni nag mooy ñenn ci ñoom daal di génn ay ngànnaay fa seeni euh, xeex foofu bu dul woon nag agent de sécurité ya fa nekk nag euh, xeex ba dina doon mujj ci ab jéeya ñu desandi ba tey ci mbiral Ousmane Sonko beeg Adji saar ñi nga xamante ni naka ñu fare ci Ousmane Sonko yoon mu ngi woy di leen euh, teg loxo benn par euh, benn ca loolee naka benn puce bi nga xamante ni naka dañ ko doon jëfandikoo ngir euh, daal di ci xooxatal ak i menacer ay kilifa ci biir réew mi ñoom ñooñee nag ginnaaw bi ñu jëlee boobu les puces daal di retracé def li nga xamante ni moom la ñuy tuddee géolocalisation nag daal di nañuy teg loxo ñu toll ci ñeenti doomi aadama yu fare ci kaw Sonko. ñoom ñooñu nag yoon mu ngi leen di toppee li nga xamante ni nag mooy xooxatal doomu aadama jamono ji nag ñu mën cee nemmeeku ca ñeent ñooñu ñu teg loxo ki nga xamante ni mooy biram Birame Souleye jóob ak Abass Fall. nga xamante ne nag ràññeeku nañu lool ci ñi nga xamante ni ñooy ànd ak Ousmane Sonko kenn kaleen jaay puce ba nag nekk ab ndawal Sonatel foofee lay liggéeyee ca këru Sonatel boobee moom nag di wuyoo ci turu Bawar Dia moom itam lu yoon daal dina koy teg loxo ginnaaw bi nga xamante ne nag jàpp nañ ni moom moo leen jaay boobu les puces ñu des ba tey ci Pastef ak Ousmane sonk coow li di woy ba tey ñi ñuy teg loxo tamit di woy ba tey ñeneen ñaar ci ay jegeñaaleem kenn ki di ab jàngalekat buy wuyoo ci turu Abbé ja keneen ka nag daal di tudd euh, Abbas moom it yoon teg na ko loxo ñoom ñooñu nag liñ leen di toppee mooy euh, nekk ci réseau sociaux yi di woote ab mbooloo ngir def euh, ñaawteef dañ ci dikkaat ci suñu beneen jotaay. ñu wax ci li nga xamante ni nag mooy mbiram dose bi nga xamante ni moom la ñu njort ni moo war a faagaagal coronavirus fii ci réewum Sénégal njiitu réew mi Macky Sall nag niki altine bi ñu génn daal dinay jot li nga xamante ni nag moo toll ci ñeen fukki junni ci ay dose vaccin ngir xeex li nga xamante ni nag mooy mbas mi fii ci biir Sénégal ñooñ ñooñe nag ba ñu bu ñu xaymaa nag Euh, li ñu ko jëndee di euh, dina war a mën a toll ci euh, ñaari milliards ci suñu ay koppar njiitu réew mi Macky Sall nag daal dinay porox ndoll ci boobile occasion daal di wax ni réewum Sénégal fas yéene na jëndaat yeneen dose ñu desandi ba tey ci mbirum couvre-feu bi waaye fële ca Thiès lay doon ndax lu toll ci euh, ñaari junni ci ay doomi aadama yoon daal na leen di teg loxo lu toll nag ci ñetti junni ci ay oto maanaam ay ndaamar yoon daal dina leen di taxawal loole nag ginnaaw bi nga xamante ne nag euh, ay takk yu féete foofee ca gox ba daal dinañuy amal ay opération ngir daal di wàccoo ak askan wi ci li nga xamante ni nag moo jëm ci mesure barrières yi ca loolee nag bokk ci respecter couvre-feu bi nga xamante ni mu ngi commencé ci 9h euh, ci guddi daal di jeex ci 5h du matin mu mel ni nag ñi féete foofee ca Thiès nag am nañ ay euh, difficulté ngir wàccoo ko boobule mesure ba tax na yoon teg ci loxo ñu baree bari ba bu ñu xaymaa nag amande ya nga xamante ne nag jot na fa jug jot naa toll ci ñetti junni million ci suñu ay koppar mu nekk xaalis bu takku lool ki nga xamante ni nag mooy gouverneur ba fare foofe nekk Mouhamadou Moustapha Ndaw daal di génn xamale ne nag naam gafak trésor publique bi nag dina am xaalis waaye li nga xamante ni nag moom la ñu mbëbét maanaam xeex mbas mi foofee ca Thiès dina metti lool ndax ña dëkkee foofu nag am nañ ay difficulté ngir wàccook à mesure barrière yi ñu tëjee ko fële ca Kédougou nga xamante ni nag ab jéye moo fa am benn ndaw bu toll ci fukki at ak juróom moo fa daal di ñàkki bakkanam ginnaaw bi mu doon amal ab xeex moom ak ay moroomam ñoom ñooñee nag ñu jàpp ni daal nañ ko fay jam ba mu daal di faatu ginnaaw bi nag bi fa police daal di wàccee daal di teg loxo ay ndaw yu baree bari ci la ñu jàpp kenn ki nga xamante ni nag moom la ñu njott ni moom moo jiite gang boobu moom mais nag ba ñu ko daal di interroger daal di nay wax yeneen tur yi nga xamante ni ànd def boobilee ñaawteef yoon nag daal di nekk jamono ji di leen wër wër bu metti ndax kookee nga xamante ni mooy o ba ñu euh, turam nag loolu rek la ci jot jàpp o ba te mu amoon fukki at ak juróom-ñaar te mu ñàkk bakkanam moom nag ñu jàpp ni ab apprenti soudeur métallique la woon foofee ca Kédougou mbokk yi fii lañu koy yemalee ak yéen jataay bi dañu koy yëkkati ba beneen uh, samedi bi di ñëw di jaajëfal uh, ci ànd bi yéen ñëpp di leen jox dig daje samedi bi di ñëw incha